janook juróomeeli édition wu semaine internationale des archives waxtaan bi nag ñi ko doon amal ci ab contexte bu xaw a doy waar ginnaaw jëye ji am ca fa ñuy denc këyit yi ca université bu ndakaaru bi archiviste bi mama ginnaaw ba mu ñaawloo lu nu mel di ñu leeral ci njeexital lakk boobee kuy yàq archive danga xamul luy archive même boo meree sax war nga am yeneen moyen d'expression yoo xam ni ah doo ci dem taal ay archive ñi taal archive yooyu ñoom ñooy jëkk a nekk victime de leurs actes perte la pour mémoire réew mi. dakaar doon dalal denckatu këyit yi di ay documentariste yu nekk ci Afrique sow jant ñoom nag doon jàngat ana yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ci wàllum denc këyit yi archive yooyu nekk cosaan ak moomeelu askan wi. archive national makkaam lañ jëkk am problème ndax li ñu fi wax yëpp euh, am na solo waaye bu fekkee ne amuloo bâtiment boo xam ne dañ ko tabax. ci niñ ko euh, euh, ci àddina si wërngal këpp conseil international des archives ni mu waxee na nii la melokaanu archive war a mel bu amulee ñuy luwee ay bâtiment di la ci dugal munoo fexe ba am 100 pour cent li nga buggoon bëggoon. bile ndaje dafa am solo ngir sukkali ab indi ab kaaraange ci bile domaine. léegi bi université bi amee archive bu ñu ko lakkee defaraat ko dafay jafe d'abord def plaidoyer ci endroit autorité yi sécuriser archive sécurisation bi ñun dañu jàpp ne bâtiment bi nekk du batiment bu adapté lépp lu fay installation électrique batiment bi ñi ko responsable dañ leen di wax ñu koy xool bëgg nañ tam protection civile di ñu jege waxtaan nañ nañ ko bu ko defee ñu ñuy jege si dañu xool suñu nekkin lan moo fa nekkul loo xam ne bés bu gàllankoor amee ñu mën koo neenal tey ñu doon te ci bile atelier bu ñu tàmbali altine UNESCO ci programme mémoire du monde la mu ca bëgg rek mooy maytundi jéey yi am ca bërëbu dencikaayu këyit yi comme la ñu nemmeeku ca université bu Ndakaar di ab ñakk bu rëy ci réew mi